moom ñoom ñaar ñëpp laa koy posé Ndora par rapport ak résultat yu Aliou Cissé def. certes def na lu benn coach su musul def. mais ci durant dix ans yi mu nekk ci kaw équipe nationale bu mhm. Sénégal est-ce que nekk nekku résultat yi dafa insuffisant parce que bu ñu xoolee euh, ak matière bu mu am yëpp joueurs yi mu regroupé yëpp. Mhm. ak fédération mooy ñu doon teg yëpp est-ce que waruloon mën a def plus. non man je ne dis pas wax loolu parce que lu tax du ma wax loolu ñoo ñu ëppoon moyen cent mhm. de dem au niveau de Maroc ay Algérie moyens yi ñuy def ñun amuñu ko te pourtant fi ñu leen di xaaree ak fi ñu nekk c'est un peu c'est différent li may mun a ñëw damay ñëw juste li Cheikh ba doon expliquer sànq je pense que Aline benn moment problème bi mu njëkk a am mooy dafay doon bugg indi système boo xam ne sama point de vue système boo xam ne système boobu ça n'a marché et cet système la tey daf ko xaw a commencé yàqal lu bari système boobu da ko da ko da ko yàqal lu bari mais aussi comme ni wax Alioune ku ko gis tamit xam ne Alioune nit de principe la. nit ku dëgër bopp la tey moo tax mu arrivé fii aussi. noo def dafay tànte beneen bi pour man euh, li ma mun a wax mooy euh, man personnellement damay wax parce que un jour wax naa moom nii. bi parce que man kan bi demoon naa kan bi euh, en Cameroun. bi ma demee Cameroun bi ñu gañee kan bi ba pare man première chose li ma wax mooy Alioune tey def nga lu Sénégal lu kenn mësul def. ñu ngi dem match contre Égypte qualification man bu ma doon yow bu ma géew bu ma qualifié coupe du monde après cette coupe du monde quelque alpha les résultats dama naan damay arrêté mais xam nga tey ni ku nekk lii liggéeyam la kiiwam la lu mu gëm la si la nekk di def lépp lu bëgg bëggam la xam nga nit mu noo ko wax loolu muy def loo muy muy bàyyi loolu exemple parce que nit munoo ko moom li nekk xalaatam rek lay def donc man loolu samay samay principe la bokkoon si sama xalaat la bokkoon parce que lu tax ma waxoon loolu parce que pour man loolu bu ko defoon sama point de vie bu ko defoon tey jii dina doon dem si équipe yu mag. mais après deux ans ou trois ans yi équipe bi di galérer bu boobaa doon na mën a ñëwaat. jëlaat équipe nationale bi. te bu boobaa bu koy jëlaat dafay gën a yomb si moom parce que Cheikh Sànq wax na ne mu ngi doon mixé tey les jeunes jours et les ñeneen ñi mais si biir mixé bi mu doon mixé les jeunes jours ak les anciens Alioune da doon prudent un peu lu tax muy prudent parce que résultat daf dafa war a am. parce que munul jël jeunes jours yi indi leen te bu leen indee. peut-être mun na bañ a am ay résultats c'est pas question que defuñu confiance les jeunes jours mais mun na bañ a am ay résultats donc il jël yenn risques yi cent pour cent moo tax mu ko doon mixé noonu comprendre mm. donc pour man le point important que mooy mm. après même bu fekkee ne euh, coupe du monde boobu bàyyiwul parce que bu génnoon foofu ak coupe du monde day day génn génn bu a doy waar mm. malgré que bu fekkee ne génnul foofu sax mais même bi mu ñëwee coupe d'Afrique mm-hmm. ne day défendre titre ci comprends parce que lu ñu mënti wax tamit moo mujjee gagné Coupe d'Afrique dafa amoon droit pour défendre titre mais mënoon nañ ko mënoon comme ni ñu ko bàyyee mu défendre titre bi mu demee titre bi ça n'a pas marché pour man à mon point de vie dafay arrêté bu arrêté soufflé waat. soufflé waat boo muy soufflé dina mën a ñëwaat ba pare bu ñëwaatee pendant deux ans ou trois ans tous jours yi fi nekkoon yépp bu leen neexee bu ñëwee fekk bu leen neexee bu neexee génnee leen les générations comme ay ñam Sadio Mané comme ay ñam Kalidou Koulibaly comme ay Idrissa Gana Gueye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que aussi tamit lu ñu munti wax aussi tamit sama point de vue laa pour man boobu à part Coupe d'Afrique bi ñu ñëw incha allah bu ñu qualifié logiquement am na si ñoo xam ne bu ñu fekkee am nañ intelligence ñoom ñoo war a bàyyil seen bopp waratuñu sax sax gën a mën a defaraat équipe bu baax parce que jeune joueurs yu bari ñu ngi doon fekkinte ak ñam Sadio ay ñam Kalidou Koulibaly ay ñeneen ak ñeneen léegi pour man loolu point la woon pour moom sama point de vue boo xam ne point la woon si pour moom boo xam ne génn boobu moo moo moo gënoon que génn bi mu génn parce que génn bi mu génn tamit mm. man je di que neexuma aussi mm. parce que quand je dis que neexuma parce que mënuñu nekk préparation nga bàyyi Alioune mu continuer préparation bi ba nekk ci qualification moment bi ñu bëgg ko fa jëlee pour man faralu ma ko wàll ki parce que man ku ma gis toujours damay wax ci vérité bi dëgg dëgg laay wax ci Alioune donc pour man du moment bi lañ ko war a génnee il fallait comme bàyyi woon nañ ko ba mu entamé nañ ko bàyyi aussi mu terminer Coupe d'Afrique bi parce que lii di ñëw ni kenn xamu ko parce que peut-être y'a Pape buy moom la ñuy jox mooy mooy continuer les deux matchs xamoo yi peut-être mën nañ ñëw benn motivation comme mun nañ ñëw bañ a am motivation ay éléments yu bari yoo si xam ne donc c'est que risque lay doon pour man aussi tamit mënoon nañ bàyyi Coupe d'Afrique bi passé après mu dem comme ni ko Cheikh aussi tamit Alioune tamit sénégalais yi deseelu ñu ko dara parce que aussi tamit moom liñ ko may comme entraîneur may ñu ko kenn man je me rappelle Amara bi mu fiy nekk di def parcours extraordinaire bi mm. dem ba Coupe d'Afrique match yëpp la gagné dem Coupe d'Afrique ñaari match mi ñu dóor ko 2-1 bokkoon naa si ñi nga xam ne dama mus a kaas ne dañu war a may suñu entraîneurs yi chance ñu def ay 4 ans ou 5 ans ou 6 ans donc Alioune li ko Sénégalais yi waroon jox jox nañ ko moom tamit li mu waroon jox Sénégalais yi franchement jox nañ ko mais ces dernières années lañ gis ne équipe bi dafa commencé wàcc. mais c' est normal parce que aussi tamit am nañ génération boo xam ne. ñoom bi ñu fa nekkee comme ay Sadio Mané comme des Kalidou Koulibaly comme des Idrissa Gana Gueye ay ñeneen ñam Cheikhou Kouyaté mais boo daan dem championnat Angleterre ñoom ñoo doon. meilleur joueur yi noonu mais boo demee ba perte joueur yooyu ñoom ñu dem si yeneen dëkk yi forme bi ñu yoroon yoruñu ko mais aussi tamit nii Aline amee problème xaw a chuté tuuti mm. noonu la équipe bi joueur yi chuté aussi loolu aussi c'est des éléments yoo xam ne nañ si bàyyi xel mm. mais man je suis d'accord que ne Aline def na temps il a fait neuf ans sénégalais jox nañ ko li nga ko war a jox. Mm-hmm. mais aussi cette Aline waroon na arrêté. depuis après Coupe d' bi taman sax du ma doon bàyyi Coupe d' Afrique Côte bi ma jegee Coupe du monde laay arrêté génn si porte bu gën a mag. nga xam ne après dans deux ans dans trois ans nit ñi ñoo koy réclamé. mu ñëwaat yor équipe bi mu indiwaat beneen génération. Mm-hmm. mais comme defu ko c' est ñu bàyyi ko Coupe d' Afrique bi mu dem nii mais après Coupe d' nañ ne ah dañuy arrêté bi indi beneen entraîneur mais defuñu ko c' est pas pour ñu war ko génne si équipe bi parce que temps bi ñu am dafa xaw a gàtt. Mm. temps bi ñu ak résultat yi est nekkul lu tuuti si temps bu ñu ko may. Mm. est ce que li mu waroon joxe la war a jox surtout si xoolee football local bi. Mm. daanaka ñi mu may sens ci côté joueur locaux yi bëriwul. est que résultat yi nekkul lu insuffisant. waaw pense que su wax si football local bi moom je pense que foofu am na fa ay euh, ay am na fa ay lacunes yu yu yu bëri parce que je pense que tey jii nii. Aliou euh, pratiquement euh, dans les stades yooyu euh, fi ñu doon jouer championnat local daanaka foon gis. Mhm. il était consommant il était toujours absent. Mhm. donc ça veut dire que parce que un c'est pas seulement yow entraîneur national na d'accord mais c'est pas seulement les joueurs qui sont à ñoo du ñooñu ak nay nay nay nay nay nay coach du du si ñooñu ak nay intéressé il faut que na intéressé aussi si entre euh, joueurs joueurs joueurs locaux yu fi nekk yu jouer championnat local pour gën leen may visibilité gën leen may confiance gën leen may war leen si projet bi neen bokk et que si vous êtes performant vous avez la chance de d'intégrer euh, l'équipe nationale l'équipe nationale je pense que côté boobu moom il euh, a beaucoup à dire a beaucoup à euh, tey jii nii euh, il n'est plus il n'est je pense que il faut entraîneur bii di ñëw bu bees bii di ñëw j'espère que moom il sera concentré sur sa ça jéem a xool si si si si si si football football local parce que ya y a y a y a des talents qui sont là-bas yoo xam ne que mën nañu indil dara équipe nationale déjà soo xoolee si groupe équipe nationale tu sais tu vois que am na yenn joueurs yoo xam ne que yow xam na ni que ñii woo nañ leen ils sont appelés mais duñu jouer donc loolu place yooyu je pense que ay joueurs locaux mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko remplacer nañ ko utiliser na may leen may leen seen chance et surtout pour promouvoir le, le football le local et je pense que aujourd'hui quand on voit euh, soo xoolee par rapport au groupe de joueurs qui composent l'équipe nationale joueurs yu fi jot a yëpp et sur pratiquement dix ans mhm. sur trois ou quatre quatre coupes d'Afrique Sénégal gagné si benn man je pense que c'est c'est c'est c'est c'est peu c'est peu je pense que Sénégal man moom laa wax chaque fois nee naa ko actuellement ni si mhm. euh, décennie bi bu ñu nekk nii bu bu ñu nekk ni Sénégal war na toll si trois trois coupes trois coupes d'Afrique et je pense que tey jii Euh, c'est surtout par rapport à la qualité des joueurs par rapport à la qualité des joueurs du compo euh, ce groupe et je pense que tey jii nii déjà dana xool yenn Coupe d'Afrique benn bi dem nañu ba finale euh, contre Algérie ba ñu Algérie du dos beneen beneen bi euh, Cameroun moo ñu éliminé quart de finale boo xam ne que Cameroun boo xam ne ñoo ko mënoon foofu mm-hmm. mais Cameroun pendant cent vingt minutes mu banku. on n'a pas trouvé la solution pour pour pour, pour déjouer le piège camerounais. et et marquer et marquer pour pour pour les faire pour les éliminer malheureusement ñu demoon ñoom. Euh, série pénalité ñi éli ñi éliminé tey jii nii bii passé bu code d'Ivoire bi. une équipe bu Côte d'Ivoire boo xam ne dafa dee équipe bu dee ba noppi benn benn médd lañu ñu indiloon ñu wax ko éliminer ñu wax ko éliminer continuer sini sini sini sini yoon et cinq minutes de jeu tu marques un but war a rey équipe bi et tu recules je pense qu'il y a beaucoup choses négatives yoo xam ne que qui se sont passées durant ces Coupes d'Afrique yoo xam ne d'Afrique boobu ñëpp Sénégal la ñu jox fa la ñu doon dox la ñu doon jox fa la ñu joxoon favori malheureusement pour des problèmes de coaching des problèmes de choix et tout moo tax ba ñuy ba on n'a pas pu aller loin dans dans dans ces différentes Coupes d'Afrique